bisimillahi rahmaanirahim asalaamualeykum wa rahmatullahi tahala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyoo fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ci teewaayu jëwriñu daara ji Serigne Youssou Diop jublu gi nag mooy ziyaara bu daara yi Hizbut Tarqiyyah fas yéene amal fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut wi ñu nekk muy bisub gaaw war a dëppook njëlbeenuk weeru safar di ziyaara boo xam ne itam am nag jagle ngir fas nañu yéene jébbalaale Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké caabi këru xaside yi nga xam ne daari isbu tarixi mi ngi koy liggéey ci biir mu jàmm Cheikh Ahmadul Khadim di liggéey boo xam ne suñu jëriñ ju baax ja sëriñ Atou Diagne yàlla na ko suñu borom dolli ngërëm ak yërmande moo ko tàmbali woon sëriñ bi joxoon ko ndigal li mu waxoon ko kàddu yu pësteef ne ko caabi laa la amel liggéey boobee nag ci tawféexi suñu borom ak ndimbalal sëriñ Touba fas nañu yéene ci njiital sëriñ Youssou Diop mii jëwriñu daara ji ñu jébbalaale Cheikh mun Mountakha caabi yi ci bisu gaaw bi war a doon fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut ñu di ko defee ci mu jàmm Cheikh Ahmadul Khadim fa ñu liggéey këru xasida gi ci biir université bi incha allah foofu la ñu fas yéene defe ziar bi kon dinañ bàyyi jëwriñu daara ji mu undi ci ay kàddu ci leeral ci bis bi taxawaay bi ak ni nga xam ne isbu tarxee ni la ci fas yéene demee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. zur man tuhibbu wa in chattat bika daar wa xaala min dunihi sahlun wa awhaar laa yamna annaka bu'dun min ziyaratihi inna almuhibba liman yahwaahu zawaaru fa nadratu lxubbi min alcheikh ila muridihi hiya almazaya walxula ku dégg kàddu yi rek xam ne isbu tarxiya fabuwaat na jóg ngir def ziyaaram bu mag bi nga xam ne moom lay def at mu jot ci cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi toogal cheikhul Khadim yàlla nañ ko yàgg ànd ak moom. mu ziar boo xam ne dina am ci bisub gaawo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août war a dë dëppoo it njëlbéenu weeru safar mën naa doon sax ñaari fan yi. ziar la boo xam ne nag ñu ngi koy amalee ci biir université cheikhul xaddim bi nekk ci Touba Madiana boo duggee rek ci buntu bi nga xam ne mooy buntu penku bi moom këru xaside yi moom ngay jëkk jot. di liggéey boo xam ne ni ko sëñ Mouhamadou Lamine waxee sunu jëwriñ ju tedd ji jàmbaar ji sëñ Atou moo ko naaloon ci yitte ju kawe yàlla defal ñu tawféex tey jii kon ñu war a jébbal caabi ji Cheikh Mouhamadul Mountakha kon ziar la waaye bésub jébbale caabi këru xasida yi xasida yi lay doon. kon nag fi may tàmbalee mooy fas yéene yeesalaat sunu cant di nuyu tey ziar Cheikh Mouhamadul Mountakha. di ko ñaanal yàlla suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba li mu yéene naal ko ci toolu seexul xaddim ak ci lislaam ji suñu boroom kattanal ko ba mu ko àggale ba mu àggale ko ci sago di nuyu tey ziar itam njabootu sëñ Tuubaa gépp te di leen ci woo bàyyiwuñu kenn ndax ñooy sunuy di ci woo itam mbooleem sëtu seexi sëñ Tuubaa bàyyiwuñ ci kenn ndax ñoom seeni maam ñoo àndoon ak Serigne Touba jox ko seen lépp te ñoom rek lañ teg bët kon ñu ngi leen di woo ci ziar bi euh, sañ ñoo woo kenn boot di kenn ndax xam nañ ne Hizbut Tarqiyyah alalu yoonu murit la alal li Serigne la moo tax woote bi ñu bëgg kenn ku ci ne xam ne woote bi na ko doyloo xam ne ñoog moom ci yem di ci itam njabootuk boppam moom Cheikh Mamadou Mountakha Daaru Minam kenn desul ndax ñoom xam nañ ne ñook ñoom ñoo bokk lépp ci njaboot gi lañ bokk loolu sëriñ bee ñu ko faggul kon suñ ci tuddee sëriñ Moussa Nawel rek dafa mel ni tuddaale nañ ñëpp woote bi nag ñu ngi koy tàmbalee ci waa Hizbut xee ñu fabu waaj biir réew mi ak bitim réew xam ne ñoo ngi jëm ci koo xam ne moom lañ yaakaar àdduna yaakaar ko àllaaxira di leen yëgal ne suñu waxee Hizbut Tarqiyyah nag bu ko kenn xatal ndax 1975 ba daara ji sosoo tudd daayira des étudiants murit ki jëkk bindu ba bisub tey Sëñ Abdoulaye dafa waxoon ne Hizbut Tarqiyyah mbooloo mi buntub dugg la am amul buntub génn kon kenn ku ci ne na ca boole boppam donte benn bis nga xëy ci daara ji nekk ko fi boo xasee bindu xamal ne tey ji woote bi boole nañ la ci biir woote bi nag li waral ñu koy yaatal mooy ku ne xam ne ne Hizbut Tarqiyyah bi mu doonee alali Sëñ tubaa ndax Sëñ Muntaxaa day wax si ñooy soldaaru yoon wi kon armée moom ñëpp ko bokk kon mooy wane ne murit bu ne na ci gis boppam waaye li ci dolliku itam mooy këru xaside gi nga xam ne dañ koy ubbi te xaside yi nag ñooy suñu lépp ñu fàggu lépp dara loo xamante ne ab murit am na ko te du ci xaside yi la ko lañ ko fàggoo amul kon defe naa murit bu ne di nga ci gis sa bopp ba xam ne bis bi sa bis la suñu digganteeg Cheikh Mamadou Muntaxa mi nuy fekki nag dama bëgg waa Hizbut Tarqiyyah ñu xam ne dina baax ñu xam nan lañ ko war a jàppee ngir mën a xam nan la ñuy waajee ak nan la ñuy demee ci moom mën na mel ni euh, mën nañ koo tënk mu doon doxin woo xam ne suñ digganteeg Sëriñ Tuubaa lépp tàbbi na ci biir ndax daf ñoo fekkoon ñu doon jëmm joo xamante ne dafa tumuranke dafa xiif dafa mar dafa réer ba xamut fu mu jëm dafa loof rafle ba amul lu mu sol amul lu mu woddoo euh, fa mu ne kenn amul ci moom soxla moom Cheikh mun daxa fekk ko foofee fat ko dundal ko reggal ko màndal ko wormaal ko yëkkati ko teral ko boole kook loo xam ne ay xéewal yoo xam ne dootul tàggook moom te amul fu mu yem kookee bu jógee di waaj ne day dem ci sëriñ bi ngir sant ko ak jébbalaat ko boppam kooku na xalaataat bu baax nan la war a waajee ndax amuñu lenn lu ñu féete fenn wala lenn loo xamante ne mën nañ koo yëkkati mun koo wane muy ndam ci loo xam ne bàyyi ko na fenn fu dul sëñ du juddu du alal du lenn kon kooku nañ xam ne képp kuy dem ci moom boo desee dara sa ngor matul te yaakaar naa ne kuñ ne taalibe sëñ Tuubaa nga sa ngor day mat sa jom day mat ba noppi nga dooru góorgóorlu nag xam ne suñu borom mooy mottili sa yéene ci wutali ko li ma koy tëjee nag mooy dem ci Serigne Touba dafa am ay sart loolu moom waa Hizbut Tarqiyyah yëpp nañ ko xam dem ci Serigne Touba moom ak koo mën a doon ak loo mën a yor weesu wut koo xam ne dafa am as kookos ndox mooy kaas boo xam ne dañ cee def ndox war cee naan war cee sangu war cee togg te di ko soxla tey soxlawaat ko ëllëg loolu kookos ndox mënu ko nga ñëw fekk géej ne ko damaa bëgg ñu wóllëre ngir su ma wëlëranteeg yow sama kookos ndox sii ma sotti ko ci sa biir waaye fu ma soxlaa ndox nga jox ma ko mu nangul la ko njébbal gu ñu nangu loolu lay firi kon nag seexul xaddim mi ñu defal loolu nañu xam ne bi mu amee lépp ci boromam ba noppi euh, keroog la door a laxasaayu riir wutali boromam ne ko ilaa man la wa kulliyati xat tawajjahat midaadi wa axlaami wa xat kaana li man naa kon kenn ci nun ku ne loo mën a am ak koo mën a doon ak foo mën a toll yeesalaatal sa taalibe wàcce waatal sa bopp te mel ni kuy soog a tàmbali te xam ne jébbal nañ la yow Cheikh Mamadou Mountakha sunu xol sunu xel sunu yéene sunu yaakaar sunu kóolute ni nga xamante ne wóor nañ ne sëñ Tuubaa ni mu joxe woon boppam yàlla joxe ko boppam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faw sunu borom fayee ko ñoo xam ne dañ koy jox seen lépp soobu nag futti ko ju mbubum àdduna amuñu fi soxla sa jëmm rek lañu am soxla loo ñu digal ñu def loo ñu tere ñu bàyyi lawu dahra niyaati wa hilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila sukli kon siyaar bi foofu lañ ko teg ma ci woo mboolem waa Hizbut Tarqiyyah mag ak ndaw góor ak jigéen jigéen ñi am nañu royukaay ci lislaam góor ñi am nañu royukaay ci lislaam ndaw ñi it am nañu royukaay ci lislaam te sëriñ bi am na ci ñoom yaakaar ziar bi nag ñu ngi ciy woo mboolem koo xam ne noo bokk yaakaar sëñ Tuubaa ndax day bis boo xamante ne bisub ziar dëgg la naam waaye liggéey bu màgg bii nga xam ne mooy këru xasida yi noog taalib bi yëpp ko bokk ndax dafay symbole di loo xam ne amul ku yaakaar sëñ tubaa koo xam ne yaa ngi noonu bokkuñ ci taxawaay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilah barke borom Touba kon ñu ngi sant yàlla bu baax di sant sëñ Touba di feddali li nga xam ni moom la jëwriñ sëñ si Diouf wax léegi nii rek ci bisu siyaar bi ñu xam ni siyaaru ren bi moom. Euh, siyaar daana am naka jekk amub taxawaayam boo xam ne nii bu bu màgg a màgg la ci noonu ak ci murid yi yëpp waaye bu ren bi moom dafa am ak yokkute am lu ci dolliku mooy këru xasida yi këru nga xam ni euh, jagle la goo xam ni ni ma ko waxee Sëriñ Tuubaa moo ñu ko jagleel ci tawféexam kon bu ñu ko liggéeyee suñ borom defal ñu ci tawféex ba mu àgg fii mu àgg tey ñu war ko jébbal sëriñ bi loolu laa ni jar na fu ab murit nekk ci àdduna mu fekke si ko ndax benn bis la boo xam ne nii moo jëkk mi ngi door a am te dootul am kon ku mu fekk ci kaw suuf te yàlla man loola ko nattable wu ma ni boo ci teewee loo ca fas sëriñ Tuubaa dina la ko defal kon nag ñu xam ni bis bi moom ñu ci ñun bisub sant la boo xam ne nii cant ngoo xam ni xam nañ ni bor la boo xam ne mënuñu koo fay waaye nag dañ ciy jéem rek te fas ci yéene sax dàkk ni ko niñ ko sëñ bi waxee rek suñu dund daal dara desetu ci lu mooy sax ci sant sëriñ bi ak ci sax ci góor góorgóorlu ci sàmmal ko liggéeyam bu tedd bi yàlla nañ ci yàlla defal tawféex ñu ànd ko murid yi yëpp barke Cheikhul Khadim Cheikh Mouta Cheikh Ahmadul Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi te àggalee mébétam yëpp te lépp lu mu yéenee liggéey ci ci lislaam liggéeyal ko sëriñ Touba ci diine ji ak ci taalibe yi ak ci murid ak ci jullit ñi suñu borom defal ko ci tawféex ba na mu ko bëggee mu amee ko nii barke Cheikhul Khadim jërëjëf. bisimilah barke Borom Touba ñu ngi sant Cheikhul Khadim Mbacke bu wér ci soññe bi nga xam ne nii jëwriñ daara ji def na ko muy soññe boo xam ne nii dañoo songoon ab xare ndax ni mu ko tënkee ci bi muy ubbi nee na Cheikh Mamadou Mountakha moo yëkkati woon ab liggéey jox ko jëwriñ daara ji suñu aatu jaan yàlla sax borom dolli taw fexeem mu wax sëñ Mountakha ci pénc na ko caabi laa amel loola tey mu bàyyi koo fi ne ca sëñ Touba euh, liggéey bi nga xamee ni bàyyi na ko fi Cheikh Mamadou Mountakha tënkal ñu ne ñu su ma masaan gis sëñ Aatu damay gis sëñ Yuusu ci biir su ma masaan gis sëñ Yuusu damay gis sëñ Aatu ci biir loolu te ji liggéey bi wane na ko ndax na ma ko waxoon na ko caabi laa la amel léegi musta am lenn lu muy dallu digganteem ak sëñ Touba ngir caabi jooju mën koo joxe kon liggéey boobu ci la jàpp ne le 19 la ko joxe kon loolu bisu sant sëñ Touba la. ñun nag dañoo am feex ji ñu jom muy Cheikh Mamadou Mountakha ci guddi Isrina bi muy ñaar fukki fan ci muharam bi ñu jàngee ba noppi ca fajar ga dañoo wax nañu saaba yi day tawféex ji ñu amoon am ngeen ko yéen ñi tey te ku jug di wut la saaba yi amoon rek nga moo la tax a jug ndax ñoom keroog bañ xaree badar ba suñu borom defal leen lam leen defal ci aw yiw rek la ñuy bindal saa yu ñu xëyee waxtu wu ne. tawfeex jooju nag suñu ko tënkalee ñu am ngeen ko ci guddi kon ñun lu ñuy sant sëñ Tuubaa suñu dara war koo fekk ni nga xam ne nii noonu lañ ko daa àndee démb ak bërki démb ci di ci jongante te fi mu toll nii am na fuñ ci toll ba daar yëpp kenn ku ne am nga loo yëg waaye nag ñu xam ne dañuy soog a tàmbali kenn ku ne na am taxawaay boobu mooy taxawaay bi soog tàmbali ñu buur nag jëm ci bis bi nga xamante ne bii mooy fukki fan yeeg juróom-ñeent muy bis boo xamante ne bii mboolem daara yëpp. woo nañ ci waaye day liggéey boo xamee ni nag jébbale kër xasida yi la kër xasida yi nag buy xasi tudd xasida rek mu am jullit yëpp woo nañ leen ci ndax mbirum ñëpp la ñu ciy sant sëñ tubaa nag ci firndeel ci tawfeex ji nga xam ne ni sëñ tubaa defal nañu ko ci keroog ci bi ñu dajee ca euh, ne ba mu xamal ñu ñu saaba yi de tawfeex ji ñu amoon yéen am ngeen ko loolu ñun li des ci suñu dund ak cant rek la jërë ngeen jëf barke borom tubaa jërë ngeen jëf kon bokki jullit yi bokki taalibe yi ñëw dégg woote bi mu jëm ci ziar bi nga xam ne daara Hizbut Tarqiyyah moom la fas yéene amal ci cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké gaaw fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut wi ñu nekk mu dëppook njëlbeenu weeru safar di ziar boo xam ne itam day ànd ak jébbal cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké caabi këru xaside yi nga xam ne daara Hizbut yi mi ngi ko doon liggéey ci biir mu jàmma cheikh Ahmadul Khadim di université bi barab boobu yi itam fa la ñuy defee ziar bi di ci woo bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp tey ñaan suñu boroom mu àggaliñ ci ak jàmm ñu def ko sàkku ci ngërëmul Serigne Touba te am ko ci di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéey Serigne Touba mu matale ko te ñu ànd ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.